Macky Sall yow la ñuy waxal jigéenu Sénégal yow la ñuy waxal nga bàyyi nga suñu doom yi ñu bàyyi leen di leen rey nanu arrêté di rey suñu doom yi jigéenu Sénégal yi loolu loolu lay wax na sa soxna ëmbee juróom-ñeenti weer ñetti doomam noonu la yaayu ñii nga xam ne dañ leen a boom barki démb noonu lañ leen ëmbee juróom-ñeenti weer noonu lañ leen bëggee woon ci seen xol jigéenu Sénégal yi nee nañ arrêtez de tuer nos enfants qu'on de tuer nos enfants qui exercent leur droit constitutionnel doon manifester droit constitutionnel c'est reconnu par la constitution du Sénégal ba ñu ciy boobu ñett encore une fois wax nañ ko kenn mësta boome autant de jeunes et d'enfants que depuis ces derniers mois et ces dernières années il faut que cela s'arrête il faut que cela cesse loolu Macky Sall lañ koy wax na nga buggee sa ñetti doom yooyu nga jur ñooñu la xale yii noonu la seeni wayjur noonu lañ leen bëggee woon tey ñu boobu leen ñi fi nekk di wax société civile ñoom ñëpp la lutte contre l'impunité fii la commencé ça va ça commencer là ça doit s'arrêter démb ñu dégg ci interview bu mu jot a def ne voilà eh bien alors dégg su ngeen ñëwul dialogué am na ñoo xam ne ñu ngi fi ah, dinañ ñëw jël la pouvoir loolu mooy appel à coup d'état booy xool loolu la ñëpp comprendre mais loolu c'est c'est assez ah, inqualifiable yow bañ lay jox nguur gi ci démocratie la ñu jaar jox la ko bu ñu la jaarale woon fii ngay jaarale nit ñi kon doo mës a dégg président tey nga jaaxle naan voilà da ngeen di ñëw dialoguer wala wala am na ñeneen ñoo xam ne ils viendront les politiciens on doit faire attention c'est toi vous qui devez faire attention monsieur le président de la République c'est vous qui devez faire attention le 2 avril ci la sa ay di jeex terminé li fi xew yëpp yaa ko indi yow yaa arrêté le processus démocratique à quelques heures de la campagne électorale heure bii bu ñu fekkoon campagne électorale kon ñetti xale yii génn manifester ba ñuy dee du ñu dee sa décision moo indi lii moo indi lii nga xam ne moom la ñëpp di jooy fii Sénégal c'est un pays démocratique démocratie la ñu xam mënoo ko mënoo fee génne démocratie c'est pas possible mënoo génne démocratie fii la nga xam ne moom la ñu lay laaj te mu leer mooy nga organiser élection yi le 2 avril nga jël sa say bagages nga dem amut leneen loo xam ne lii moo fi war a mën a am votre mandat monsieur le président de la république vous le savez très bien il se termine le 2 avril cette incitation subliminale Ah, si vous venez pas, si on ne dialogue pas, d'autres forces. Quelle a pas d'autre force dans le jeu démocratique que les par le code électoral, qui sont régis par la constitution, qui sont par la loi. C'est ce qu'on vous demande de respecter et rien organiser sans délai le 25 février l'élection présidentielle que vous avez arrêtée à quelques heures de la campagne électorale. je considère pour moi, pour quelqu'un qui a été élu grâce à la démocratie sénégalaise, on vous aurait appliqué ce même régime, vous n'auriez jamais été président de la République. Cette démocratie sénégalaise, qu'aujourd'hui, vous estimiez que si on ne dialogue pas, des forces vont venir et nous rétablir un appel du pied à des forces qui n'ont rien à voir dans la démocratie, absolument rien à voir, et qui ne vous suivront pas. parce que le Sénégal, la démocratie est ancrée dans nos valeurs. Tout ce que nous vous demandons aujourd'hui, c'est sans délai, organiser l'élection le 25 février. Nous demandons aussi au Conseil constitutionnel. Nous avons fait un recours au Conseil constitutionnel. Mesdames, Messieurs, vous êtes cinq Sénégalais aujourd'hui. Sachez que sept Sénégalais, l'avenir de ce pays en quelque sorte et aujourd'hui entre vos mains. L'histoire vous a placé devant nous. C'est à vous d'entrer dans l'histoire ou c'est à vous de marcher et de montrer dos à l'histoire. Vous savez pertinemment que la loi qui a été votée pour le report est une loi anticonstitutionnelle. Nous avons fait recours. Si on veut que le Sénégal continue sa marche démocratique, mais rapportez cette loi qui est anticonstitutionnelle. et nous retournerons normalement dans le processus électoral qui était entamé et qui n'aurait jamais dû loolu mooy wax ji tey juróom-ñaar ngeen yu sénégalais yoo xam ne yii bu ñuy seet avenir ak présent au Sénégal mu ngi seet loxo ndax la xew assemblée nationale ñu delloo génne génne génne génne génne délai bi ne non léegi dañu koy yóbbuwaat neuf mois xam ngeen ne loolu tegul ci yoon. xam ngeen ko bu baax li président Macky Sall doon wax mu ngi fii tege ñoo àndoon ak moom ñun ñoo doon manifester ak moom na ku ne delluwaat xool dans les réseaux sociaux la mu doon wax président am Ablaye Wade ne ko fii doo fi toogaat un jour supplémentaire mais yooyu Macky Sall doo fi toogaat un seul jour supplémentaire kon conseil constitutionnel soxna yeeg ña fa ne xam leen ne la ngeen war a def pour lii dakk xale yii di génn manifester te ñu am ci droit nag am droit mu manifester. di manifester pacifiquement. ñu naan leen tell bal ñuy dee. vingt deux ans vingt trois ans mais où est le où est dans quel pays cest rien que ça c'est une défaite loolu waroon naa laaj kuy ku jiite réew mi démissionné sa ay propre doom yow ñu tuddee la le père de la nation père de la nation dafa am sens waxuñ ko rek nii mooy da nga war a protéger sa jeunesse warta génne di di di manifester ñu leen di dóor bal ñuy dee kooku jigéenu Sénégal yi duñu la ko masabaal duñu la ko masabaal la ñuy laaj nag mooy yoon àtte ñu mooy li professeur li li procureur wax muy CPI muy justice képp koo xam ne boom nañ la la fi dans l'exercice de tes droits constitutionnels mais dinañ ko dinañ ko layoog yow dinañ ko layoog yoon kon cet appel qui a choqué le monde entier tout le monde a li nga bëgg a wax su ngeen ñëwul dialogue armée day jël pouvoir loolu loolu la ñëpp comprendre loolu la ñëpp comprendre te yow nga jaar ci démocratie hmm. yow armée ñëwul teg la fi de ci suñu coobare bopp ñun sénégalais yi ñu def ñu ñu wàccoog yow nag fal la falaat la nga war a dem interrompre processus démocratique bi nit ñi génn di manifester ñetti xale ñetti xale yi doomu Sénégal def yi nga naan eh bien su ngeen ñëwul bu ñu discuter wul d'autres forces mais ces forces on a bien compris loolu du fi amee c'est un appel aussi que nous faisons à nos de tenue qui ont toujours été des kenn du la topp ci lii kenn du la ci topp kenn kenn du la ci topp le 2 avril nga pare sa ay jeex na nga dal di dem ñu organiser ay élections kon sénégalais yi aussi loolu la noonu la ñu taxawee taxawuñu neneen fii du ay casseurs nekk ci biti wala ay jeunes lañu ay femmes ay mag yu taxaw gis nañu ay mag soixante dix quatre vingt ans yore seen yore seen drapeau Sénégal personne handicapée bien sûr brutalisé c'est-à-dire da ngay da ngay dem ba yow gàcce ngay am comme sénégalais gàcce suñu wax ju bari jeeg droit de l'homme nga gis say force de l'ordre di brutaliser ay soxna une femme dal doxe ko ginnaaw même pas en face parce que jigéenu Sénégal kenn du leen xoqatal doxe ko ginnaaw dóor mu taxaw noonu la jigéenu Sénégal yëpp taxawe noonu la ndawu Sénégal yëpp taxawe noonu la magu Sénégal yi taxawee kon loolu mooy li nga xam ne moom lañ ci buggoon a wax ak xol bu naqari waaye ak détermination wax naa ko détermination sans faille bu fekkee ne nag 18 million de sénégalais yi mën nga ñoo dugal kasu ñun ñëpp bismillah